Euh, docteur Cissé la gis une euh, information yi a ramené euh, journal l'Observateur génn par mhm. rapport à entretien qui nga été jot amal police mais ce cas lu mu interpellé aussi par pas non c'est c'est-à-dire c'est entre le zèle de trop l'ambition de trop Qu'est-ce que c'est Aduna est-ce que les policiers ont nos droit d'y poser médecin par rapport à euh, euh, santé. Euh, jambe, santé non je suis désolé mais ñun Sénégal. c'est la question qui m'attarote l'esprit c'est du zèle de trop. mais tay di que li fi xew xam nga mhm. sunu ay kat dañuy jël yoon. Mhm. interpréter ko selon nañu ko bëggé mhm. le malheur sanu ay kat dañuy jël yoon def ko nañu ko nous te xam nga tey jii si je prends le cas de l'article 80, quatre bi ñuy menacer tout le monde bi ñuy sonaler tout le monde def ci de façon composite tellement d' et de on ne sait quoi pour juste sonal nit sonal ay nit mais heureusement yàlla am na toujours ma wax ko heureusement yàlla am na gis nga nit lu mu def nit a ngi toog di plan di planifier toog fi mu toog yor bigam ak crayon di planifier tak ndekete yàlla bind na ni moom mandat bi sax du ko barke Baye Laye alayhi salaatu wa nit toog na yor mandat présidentiel wala mandat basket wala mandat whatever toog bind signé ne bon je kii kii yàlla ne ko yow doo àggale mandat bi yow. wallahi al azim xam nga lu tax yàllaay def lu ko neex Palla Samb yàlla na yàlla yërëm ko dañu ne dafa dugg tëdd di nelaw yeewuwaatul loolu sunu borom la su fekkee ni ñi nekk ci nguuru senegal président Macky Sall ak ñi mu àndal bu xalaatuñu suñu borom ñom ñu tek ci li leen neex parce que on a des privilèges mais allons-y voir Dieu est le tout-puissant te yàlla du setan peuple surtout peuple bo xamné un temps soit peu mu ka kaa mu ngi kaa tudd réew la du réew bo xamné da ngay ñew torturer nit ñi nappaaje jëlen dem du fi am nek bi si bi un médecin confidence li dundé, li mu yore c'est confidentiel nga nga war wax wa yow nit bi ne ko bon Ousmane Sonko xanaa xamoo tontu médecin bi mhm. li ma lire man li ñu wax. il paraît que médecin bi nee na moom bien euh, benn soin pour Ousmane Sonko mu nek lo, xam niti aussi ba c'est la c'est la plus belle façon de garder le secret.

dans ce pays là il faut ñuy waxante dëgg njàpp si àdduna li gën a soof si àdduna mooy ragal nit li gën a soof si àdduna mooy xool jaam comme yow yàlla sàkk ko sàkk la jox lay loxo jox lay nopp jox lay làmmiñ jox lépp jox la cër jox ko ka nga xool ko sëgg ndax lan ragal sëgg ndax lan daf lay jox sëgg ndax lan da ngay am profit sëgg ndax lan ndax lan ndax lan ndax lan jikkooy jaam boobu ñun newul si ñun li nguuru Sénégal bi nekkee ci Sénégal du deug du yoon ma ngi gis tay ci suba amna kuma ku message naan ma oui euh, on ne sait plus si t'es un journaliste si t'es un chroniqueur si on ne sait plus manako ne xam nga lutax xam lutax lu rew amna fu muy titre amatul solo amna na fu muy toll mbubba médecin amatul solo amna na fu muy président sax amatul solo bi Allemand yi Strasbourg Alsace di jëm pour songi Paris maréchal Pétain cédé mom don ab naga naga tàppet Charles de Gaulle mom nek stratège génn Lata, Allemagne yi di agsi génnam bobu génnam boobu tubaab bi dañoo war ñom di dem église 24 heures sur 24 di ñaanal Charles de Gaulle fa mu tëdd ay xam sedd xamalu tax génnam bobu mu génn daw Londres def sa déclaration du 18 juin 1940 Monte France existe ils bay sonal Afrique Ben affaire la l'or là que vous avez ici vous le prenez vous le reprenez parce que or ko ci esclavage sàcc ko révolution industrielle un ko Afrique qu'est-ce qu'ils ont fait Charles de Gaulle ne leen da ngeen koy bateau, il ko si bato yi allemand, Il yi di ñëw ngeen daw yóbbuwaat ko Afrique lan fort de Bakel parce que c'était entre le Sénégal

et tout le monde est là euh, bon n'y a pas de problème Nous, devons ñu dire def pourquoi. Mm-hmm. aujourd'hui toute information donnée est sujette à soi-disant être traitée de diffamation et de fausses nouvelles. Voilà, les journalistes, ni ñiy wax ci politique ak vous bu fi kenn joxetee information information vous ñu la fausse nouvelle Vous xam nga yëg na ma information boo xam ne bu ma ko waxoon mardi tal dañ la naan waa yow léegi yow li nu mu parce que bari na information yo xam et ça on le dit en passant à nos confrères à tout le monde faites attention à ces nouvelles sources qui vous donnent de l'info. surtout surtout. parce qu'aujourd'hui la stratégie c'est quoi mooy jox la une fausse info. pour mm-hmm. dugal la. il faut toujours recouper. moo ñun ñun dañoo dem nak ba ben niveau bo xamni ne léegi xam nga kan la noo déglu. Mm-hmm. ki nga xamni ne xam ne nañ ragal na yalla suñu borom. ak ki nga xam ne amaan léeg-léeg dañuy bokk ak moom deret ndax deret du fen deret le sang ne ment pas dafa am loo xam nit mën na ko ak nit ko ko mënut ñun mënuñu ko ñun mënuñu dund ci réew boo xam dañu gis dëgg ne du duñu ko wax mun a ne quand les gens disent ñi war a wax nañu wax ñi war a wax bu ñu waxul ñeneen wax la nature a horreur du vide sanu maam Baye Lahat dana wax Abdou Diouf aw e nekkuloo si dëgg sanu maam Abdou Aziz Dabakh woo micro yi ne hey mbir la war a tëddee la dernière déclaration de sunu maam maam Alassane maam Ran, yal na yàlla yokk seen ay leer fii 1992 ca Yoff wax def déclaration def ko si dëgg lan mooy dëgg lan moo la dëgg lan laa aujourd'hui il faut dire au président Sall ak ñi mu vous faites quoi de vos déclarations en tant qu'opposant vous faites quoi de vos promesses sur le yoonu yokkute ou que vous avez transgressé ou transformé soi-disant en émergence vous faites quoi de ce que vous nous aviez dit au temps du référendum de 2016 vous faites quoi vous faites quoi vous faites quoi nom de Dieu de toutes vos promesses et aujourd'hui vous nous attaquez vous nous faites mal vous nous terrorisez et vous pensez que ça va prospérer heureusement qu'il y a la femme app mm-hmm. mais pas pour le cas docteur Nyan même euh, au-delà de l'affaire Ousmane Sonko bi nga xamné ne nañu wax né mo taxone mu atterrir fofu les si euh, euh, clinique am suma assistance ba nit ñi japp né sax peut-être dafa nek di dimbale Ousmane Sonko si ay manipulation par rapport à sa santé mais am na affaire bo xamné peut-être lool moo tax selon jox njortu journaliste ñu am plainte bi nga xamné maire euh, bu Médina bi Bamba Fall annoncé woon nañ ko mo nek par rapport ak xalé bu góor boobule euh, nekkoon ci miirim euh, gañu won ba ñu né daf ko dañ ko yóbbu woon foofu lee si bi. ci suma bi autant pour moi ñu nan ko li ñu koy laaj ndax si Pastef le bokk fait que euh, ces accusations aussi euh, sont avérées par Hassan. est-ce qu'un euh, médecin ou la structure sanitaire a le droit d'un un patient qui il est en danger de mort laaj ko ndax le la bokk wala aussi par Hassan est-ce que tamit mënul le motif de son arrestation légale Ce fait qu'il amna, mhm. c'est indigne voilà c'est ignoble c'est mesquin mhm. c'est dégueulasse su qu'il am parce qu'il y a des informations. Je fais qu'il y a fais Sous fait y Mais, Khoulil, ah ouais. Non, Koulin. Faut vous là. Ouais. Gore Diop, il y a une 18 h 20 h 2 h Vous le jeune là. 2 h xalé bi mënuñu ka yobbu ay sapeur nan mënuñu ñew parce que situation bi policier né naw arrangez vous pour ngeen ki ko loolu la témoin bi wax mom mo mujj démerder ba ben taxi ñew difficilement ñu jël yobbu xalé bi ñu ka baaje baaje moy manam do dugg fi dugg fi kon xana tay hôpitaux yépp lañu wara japp mm. eh kon xana tay hôpitaux yépp lañu wara japp ña fa nek ne len eh yeen nit ñi di ñu naan len do dugg amul place na fay na bay carte d'identité ba mu ñak on va arrêter tous les médecins du Sénégal, tous les hôpitaux, tout ce qui est... Mais attends, Ndiap, nañu wax de Vous avez tax gis nga nguur du règlement de compte Ngour, du dund ci man ak yow la des yow la état y'a yor budget y'a yor armée y'a yor justice yaa yor lépp foo faire nag nit ka bare a sago ka daa doon ka ka ka nga xam ni maanaam pour mu daanu day yomb parce que xam nga lu tax nit ka bëri doole ñiy def arts yoo xam nañ ko ba waa ba bëree doole tiim la bala bëggee foofu bul résister. àndal ak moom mu wàcc. waajal ëpp doole. bala gàddoo rek boo résister da lay gaañ. bu la nee niib àndal ak moom parce que c'est un poids de sur de c'est un surplus de poids ah, yow poids nga yore. mon poids la. Mm. bu la gaddo day diis mu ànd ak yow. bu wàccee nga. <laughs> non Fassane do dem nga def ko non bu bu ngeen àndandoo ni ci suuf. Ah. bopp bi dal du gis fi mu ne xulil nga xulil aw nga <laughs> waay yow. gis nga li ma la wax ni ah. c'est drôle. mais est-ce que tu sais que c'est comme ça qu'un peuple fait loolu le peuple di def ñi ko sonal ñep manam ñi koy sonal dañ koy ëpp doole. Uh-huh. légui peuple bi mom day dem ba benn moment na sax léegi nag kaam doole day jàpp ni mom tok na amna na doole jékki-jékki rek du xam fu ngelaw jóge yalla rof ko ko mu faible. Uh-huh. yow mën nga dominer peuple ba tok fi yow ne yow yaay doon yàlla mënta ne. Hmm. le président Macky Sall tok wal Walfadjri jox ñu exemple Firawna. Hmm. et je n'ose pas imaginer et penser et vouloir penser et dire que monsieur le, le président de la République du Sénégal Macky Sall day fonctionner comme Firawna du ma ko wax mais nit mi ne de nak il s'agit d'une chose la gestion de l'État vous gérez nos affaires nous ñu leen ngeen ne bu ñu wax ci lool APR fu leen neex meeting fu leen neex non il faut pas parti unique amul Sénégal c'est fini mm-hmm. Léopold Sénégal, c'est que da ñu def Abdou Diouf bi muy ñëw mu fekk fi daanaka président Senghor Abdoulaye Wade ñaari parti boo ci boolee ñoom Majmout Diop PA yi ak ña des à la limite ak Cheikh Anta RND nga am quatre partis Abdou Diouf ñëw def multipartisme ku mu neex nga créer sa parti 1990 sommet de la boule en France François Mitterrand est africain maintenant vous devez aller vers la transition de la démocratie ou démocratique mais vous allez y aller ah, selon votre rythme Donc vous n'êtes pas réalité pour faire la démocratie. Mhm. le Sénégal jël Abu Abdou Diouf Oubi, en 1993 après les élections l'élection présidentielle bi nga ou pas Diouf libéraliser l'information les radios privées djoudou, sur FM juddu Walfadjri Djoudou, Dunia Djoudou, mhm. carte gi leer